mucc ayib yombalan mu liggéey bi bi ñu ko indee it seen xaadim wax na ko bi ñu ko yóbbulee sëriñ bi yóbbul ko ko te xam na ci taxawaay boo xam ne moom mënuñu lu dul di yóbbante le suñu cant ak suñu nuyoo di sant itam le ministre la culture bi nga xam ne moom la ñu booleeloon docteur Aliou Sow moom it mu taxawaay ci taxawaay boo xam ne raf kawe na njort li ci mujj bi muy dem Maroc ñuy visiter ji musée bi nga xam ne dañ ko yónne dañ ko dañ ko euh, jagleel yonent bi man mii daf ma ne fokk ñu dem loolu teraangal joo xam ne wax naa ko sëriñ bi nga la ci sant la ci gërëm monsieur le ministre de la culture et du patrimoine di sant nag ginnaaw ñoo ngi fii ci kër gi fokk ñu jottali ak cant monsieur le directeur général Amady Bokum wax na ko léegi bi ñu tàmbalee liggéey léegi mat na juróomi at yoo xam ne réunion ñi def Touba sax day ñëw fii moom daf ñu koo ubbil amul guddi amul bëccëg daaw jéeg màggalu 2021 bi ñuy def exposition ci buntu ko Sëñ Abdou Lahad di wax ci solos musée bi mën naa ne logistique bépp moo ko fay te ku ko doon xayma ci koppar war naa mat romb ñaar fukki million di dem boole ko nag équipe boo xam ne mat nañ fukki nit ak juróom monsieur le directeur général bu ñëwee ba fii foog ñu wax ko mbooloo mi sant la gërëm la kon xam naa ni euh, kàddu yi daal kàddu jant la rek di sant nag bokki taalibe yëpp di ñaan ku fi teew suñu borom faj sa ajo ci barke Serigne Touba. noonu la ñu nuyoo jëwriñ Serigne Bakk yi fey ndax moom lañ fekk si Ndakaaru nee naa ko sax sànq yow yaa waroon dem boo waxee rek yóbbaale nga ma ndax yow la fi Serigne bi teg te waa Ndakaaru lañ fekk si kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa coono bi tax na liñ ci waroon a leeral des na. waaye li ci des yéen a yóbbaale na ko ñu ngi leen sant leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.